Misiñota. Ah, wax leen ku ñaari yoon ci ñu. Oh, oh. Misiñota. jigéeni réew mi dëgg-dëgg gori réew mi yóbbuwuluñ leen minutos. asalaamaaleykum yéen ñi seetaan étoile TV waaye lépp di ko bëggee fépp mu nekk ci àdduna bi tey nag dafa nekk benn journée bu spéciale journée boo xam ni dañoo seet yi ki nga xam ni bëri na ñi rafet Tiwaawan ci loxoom lañ jaar bëri na tamit ñoo xam ni tey jii tij nañ seen salon di liggéey ci loxoom lañ jaar muy Ndeya Makeup dañ koy bàyyi léegi mu présenté wu wax moom mooy kan wax lan mooy Ndeya Makeup après ñu mën a dugg ci waxtaan bi Ndeya maa ngi lay ziar waaw la nga présenté wu waaw fii nag mooy maa ngi tuddoo Asu Samb maay gérante Ndeya Makeup waa maay maay xale bi yëngal Tivaouane daal fan yi incha allah. noonu yaay xale bi yëngal Tivaouane gis nañ ko ak macha allah lu rafet li nga def ñu ñëw bi ñu dugg see fekk la ak élèves yi ngeen nekk ci liggéey bi comment comment comment nan ngeen organiser woo liggéey bi ba Ndeya Makeup tey ji am na succès bii mu am. macha allah liggéey bi nag dama fee yor sama ñaari rak hmm. kenn ki mooy madame Samb Aji Faat mooy borom anytime bi. ak maman Ndeye Samb sama rak ñooñ ñooy maquilleuse yi waaw ñoom ñooy defar xale yu jongoma yi gis nga nii ñoo maquillé nii ba ma jongoma nii génne béy bi xeer yi waaw felfelaale daal fi wàcc waaw man nag maa maa maa ne ci création bopp yi maay defar bopp yu doy waar yi bopp yi nga gis euh, Ndaya Makeup saa bu créé benn bopp bu bees buy ñëwaat day indi leneen inspiration yi fan lay jógee Ndaya Makeup da kaa jàng wala comme xale yi xëy def rek xëy wa bop na dama ko daan fowé nak wax deug yalla dama daan fowé bop ba ci yag mané pourquoi pas ñu ubbi salon fekk man sama grande sœur Aïda Dem moko janggal, après nak ci ubbi salon Ndeya Makeup bi wa ma nek ci bop yi di créer rek wax dëgg yàlla di défar lu rafet nak xalé yi bëgg ko lool deug yalla légui nak mais xam nga coiffure day évoluer bimu évoluer nak dama ni pourquoi pas ñu dem defi yeneeni yeneeni ñu innové daal génn ci yeneen waa léegi nag ñu dem defi ji ay master class. léegi nag master class yaa ngi nii diplôme yaa ngi nii. def am ay master class dem nañ ci master class temps yële Dakar. Mm. bi ñuy bëgg a gàmmu. Mm. Euh, master class boobu ñu ko organisé woon ministre de la femme la ñu jël ñu ci léegi nag formatrice yi. kenn ki France la jóge ki ci des États-Unis mooy diplôme bi ñu jóge ci loolu ci vingt vingt cinq février bi ak le vingt six bi ñu demoon master class Kange kiin Fat Palace boobu tamit am nañ ci diplôme diplôme baa nga ne le mhm. waaw parce que maanaam métier bi dafa toll foo xam ne il faut ngay innover booy innover ne da dem jàngiwaat yeneen i xam-xam boole kook sa bos dëgg la yeneen xam-xam boole kaak sa bos waaye ñu gis information yu ñu jot a am master boobu ko demee bokk nañ ci les trois premières la moo tax Ndeye Amika bi mu ñëwee wu ko wala tamit wala dafa bëgg defoon nañ ci benn kii mais xam nga rek boobu kii ñu ko woon daal parce que danoo programmé woon affaire bi ba pare daal di am dese loolu mooy yàq kii lu bari mais tey mu nii bopp yaa ngi nii xale yaa ngi nii ci biir wax dëgg yàlla ñu ngi créer daal waaw te luñ créer nit ñi bëgg ko wax dëgg yàlla luñ defar moom boo duggee salon Daya Make moom bu la maquillé ba defaral la bopp boo génnee di nga xam ne affaire bi am na changement ba ma jógee ci boobu noonu dama fay taxawaat ci formation boobu ndax yow dong yaa fa nekkoon ci doomu Tivaouane wala am na yeneen doomu Tivaouane yu fa nekkoon comme yow non man rek maa fi jóge woon Tivaouane nag waaw man maa fi présenté woon waa non non danoo def formation ba pare après ñu def ñu def concours ci biir formation bi amoon na concours mais ñu ngi nekkoon 256 dëgg yàlla euh, coiffure moom ñun rek ñoo ci yéegoon ci podium bi ci ñu defal coiffure wax dëgg yàlla. mais après xam nga rek ñoom dañuy jaay seen seen kii. waaw seen produit extérieur danoo danoo favoriser ñi ñi def mèche yooyu daal parce que kin doon aar affaire aar bi daal lan lan gën a jël maa gis sax ci TikTok bi nit ñi di commenter ni kii yéeg ñu ñu wàcce ko mooy numéro 406 bi moo nekkoon ñun ñun rek ñoo fa yéegoon ci ku defar bopp mais xam nga rek comme ñoom dañuy jaay seen kii extérieur ak États-Unis bi mu jàngee formation bi après mèche bi daal moom la jël mais wax dëgg yàlla ña fa yéeg ñëpp ñun rek ñoo fa defar bopp mm. ku wax formation ku wax concours wax expérience tey jii Ndeye Amé bi muy dem am benn pas bu mu tolloon mais tey jii bi ah bi nga retourné te jii ñëwaat ci biir salon bi yan expérience nga yu nouvelle nga am par rapport ci concours boobu noonu. waaw ñun nag bi defee formation ba pare rek ba def customisation rek. dan ni ñun mom suñ fay mat na deug yalla parce que jangal nañ nu les frontal jangal nu customisation jangal ñu baby bi moy baby béy yi nga xamné so génné baby béy bi kén du gis fi nga dagge greffage bi mm. wa loolu mom wax dëgg yàlla xamuñu ko won ba dem customisation nonu wa yoy yëpp fa lañ ko jangé ak teinture les bi ci biir dang koy fi ne teinture na nee ñu yeen master class bi yeen rek yeen a fi teinture les te génnu ci biti wax deug yalla formation bi mom jëlé nañ ci expérience machallah wax deug yalla ñu koy sante nag Kange Dioum waaw parce que mënoon naa yor xam-xamam denc ko waaye daa jànge Amérique ñëw ba fii wane format wane lim jàng kon kooku soxorul bu soxoroon du génne parce que tey jii ñun ñu fa jógee ñëpp jàngal nañu béy bi xeer jàngal nañu simpot jàngal nañu turbuchon jàngal nañu customisation jàngal na nañu teinture frontale bi ci biir mhm. kon loolu ku soxorul du ko ku soxor du ko def mhm. dëgg yàlla ñu koy ñu ko ci félicité bu baax di ko encouragé wax dëgg yàlla tey jii nii euh, may ndeyaa may képp xam naa dañuy bàyyi ñu mën a dugg ci biir mais bala ma laa bàyyi faaw tey nii sa rakk yi ndaw yi ngay gis ak sa mag yi ak sa xarit yi nga xam dañoo dugg ci wàllu métier bii nii ak métier bii nii tey amoon conseil yoo leen conseil lan lay nekk parce que gis nañ bari na xale yu jigéen yi bari léegi ñu ci TikTok bi ñu def ay direct di make up ak yooyu noonu ndax foofu la wala dañoo dem tijji salon non foofu la sax foofu sax baax man daal li may préféré mooy kenn ku ci nekk bala ngaa ubbi salon demal nga jàngi ba pare parce que jàng bi daal boo jàngee ak ki jàngul di nga xam ne bokkuñu kii parce que boo gisee bu njëkk bay bi xeer yi ma daan def nuroowul ak bii mm. léegi bay bi xeer bi doo gis fi daggee fi mu daggee greffage bi mënoo koo gis nii loolu nag boo jàngi jiw doo dëgg yàlla ma leen waaw xam-xam daal dañ koy jàngi waaw xaalis pa bala ngaa wut xaalis pa ma am xam-xam aja kan ngay sant ak gërëm kan ngay sant maa ngi sant nag di gërëm sama bi yëpp wax dëgg yàlla di gërëm sama élèves yi ñoom Anta Marème Fass Saw wax dëgg yàlla ñu ngi fi nag di bay seen waar nag dëgg yàlla ñooy simpot greffage yi di distribution di def lépp waaye nag maa ngi gërëm nag mas kii mention spéciale nag sama maquilleuse yi ki sama rakk la ño bokk nday ak bay ak aji faatu jabari xaadim ñom ñoy maquillage maquillage yu doy waari ci salon wax deug dëgg tay ji ni nii Ndiaye Makem ndax dina déplacer wala tamit nga joxwaale numéro bi tay ji ben client nekk ci kërëm bëgg nga ñëw defal ko tam bañ bougé ndax yoy di nga ko defee waaw dañuy def déplacement dañuy def déplacement di dem Dakar ak Thiès ak fu ne dañuy dem déplacement wax deug yàlla nga joxe numéro bi wa numéro bi nak 77 la 442 75 23 bo ci woté rek inshallah sa aajo dina faju nuyu noonu mbokk yi nga xam ni moom Maya Ndeya Makeup gis ngeen parcours am waaye tamit gis ngeen fi mu jaar yow mi nga xam ne da ngaa nekk Tivaouane wala nga nekk fépp part dans le monde boo bëggee ñëw Ndeya Makeup jàppoo la boo ñëwee ba waaye tamit boo jógee frontière di ñëw foo fan mooy Ndeya Makeup yàlla koy won jàppoo la nekk mu nekk tamit soxna soo xam ni yàgg na ci métier waaye tamit yàgg naa liggéey xam naa dama lay bàyyi rek ngeen dugg ci biir daal di yeggale yëf waaw waaw maa ngi sant nag di sant nag borom daya Makeup muy day aram mu nga ne dafa effacé wu kenn ko waa di sant nag sama famille jëkkër wax dëgg yàlla loo woote ñu ñëw jama sall ngi nii di ñaan hmm. yàlla yàlla nañu nu yàlla taxaw yàlla jàppale ñu hmm. waa di sant nag monsieur mm, Simbay borom ina wax dëgg yàlla maa ngi koy nuyu di nuyu sama sama doom ya fa nekk tamit wa namm naa leen. preuve à Sénégal daa bëgg preuve diplôme baa ngoogu aja mi ngi noonu gis ngeen master class baa ngoogu formation bi la defee woon mu bokk ñi nga xam ne dañ woon mu nekk doomu Tivaouane tamit da koy taral ñu nekkoon plus de 500 élèves waaye bokk ko fii ak ren mu nga xam ni concours international daal di koy jël ndaxte mën na ko bëgg na ko ñun doomu Tivaouane fépp nekk dañ koy wane kii gis nga ngi noonu concours baa ngi noonu mu liggéey ci am solo ba bokk ak morom waaye yi lii la woon ci Étoile TV inyota